soxna Daba Mbacke soxna Daba Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1925 ci dëkk bu ñuy wax nag Daaru Salaam Kayal Daaru Salaam Kayal nag waajuram Cheikh Mamadou Bassir Mbacke moo ko sancoon muy doomu soxna Mariama Lo ak Cheikh Mamadou Bassir Mbacke waajuram Cheikh Mamadou Bassir Mbacke mi ngi ko tuddee nag Roqayatu waaye nag ñu gën koo xam nag ci soxna Daba moom soxna Daba Mbacke moom nag ñu wax leen nag waajuram wu góor wi nag ak waajuram wu jigéen wi nag ñoom ñooy ñan Cheikh dul Bassir Mbacke nag mi ko meññ doomu Serigne Touba Cheikhul Khadim la waajuram wu soxna Marema Lo doomu Serigne Ndaam Abdourahmane Lo la ak soxna Aminta Mbacke soxna Aminta Mbacke doomu Mamor Anta Sali Mbacke la soxna Aminta Mbacke ak maam Thierno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru nag ñoo bokk nag waajur wu góor ak waajur wu jigéen soxna Marema Lo nag mi meññ soxna Daba Mbacke bokk itam nag ci doom yi soxna Aminta Mbacke am ak Serigne Ndaam Abdourahmane Lo soxna Aminta Mbacke nag Cheikhul Khadim nag moo ko jébbaloon Serigne Ndaam Abdourahmane Lo nag ngir mu dëkkoo ko ginnaaw bu mu ñëwee nag ci loxoy Serigne Ndaam Abdourahmane Lo njaboot gii nag la am ak Serigne ndaam abdourahmaan loo mooy ku ñuy wax soxna faati loo ku ñuy wax soxna aminata loo ku ñuy wax soxna xari loo ku ñuy wax sëriñ moodu loo ku ñuy wax soxna awa loo ku ñuy wax soxna assu loo ku ñuy wax soxna roqaya loo ku ñuy wax soxna buso loo ak moom soxna mareema loo njaboot gi nag mooy njabootu soxna aminta mbàkke ak sëriñ ndaam abdourahmaan ngir xamale leen ak njabootuk soxna aminta mbàkke ak sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag ñoom ñooy ñan soxna faati loo nag bi matee dem kër sëriñ amar faal mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ amar nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Omar Mbàkke sëriñ Ceerno Mbàkke sëriñ Abdul Quddus Mbàkke ak sëriñ Moodu Faati Mbàkke doomam ji ñuy wax soxna Aminta Lo nag bi matee dem kër Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Mariyamu Mbàkke sëriñ Mbàkke Madina ak seex ndoom ba nag soxna Roqayatu Mbàkke doomam ji ñuy wax soxna Xari Lo matee dem kër sëriñ Mbàkke Ramata nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mbàkke Ramata nag am nañ ak njaboota mën cee ràññee nag sëriñ Modou Khary soxna Mbacke Khary sëriñ Abdou Mbacke Khary soxna Ami Fall Mbacke Khary ak sëriñ Mor Khary doomam ji ñuy wax sëriñ Modou guddul nag aw fan bokk na itam nag ci doomu sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo yi teel a génn àdduna doomam ji ñuy wax soxna Awa Lo jotte dem kër laataa muy dem kër nag la génn àdduna mook soxna Astou Lo nag ñoo seexandoo doomam ji di soxna Astou Lo nag bi ma matee dem kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag am soxna Sooda Mbàkke ak sëriñ Moodu Maamun Mbàkke doomam jii ñuy wax soxna Buso Lo nag bi matee dem kër sëriñ Ibra Mbàkke Fari nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibra Mbàkke Fari nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna May Mbàkke Gube doom jii ñuy wax soxna Roqaya Lo bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Faati Aali Gay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Faati Aali Gay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Faati Gay soxna Aminta Gay sëriñ Moodu Aali Gay moomu nekkoon na imaamu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk bii nag di daarul moxti soxna Roqaya Lo mii nag mook soxna Mariama Lo mii nag ñoo seexandoo soxna Mariama Lo nag bi mu matee dem kër Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Assu Mbàkke Sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke soxna Mariama Lo nag mook Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke amaatoon nañ nag baneen bant bu góor boo xam ne nii nag bi mu feeñee jamono nag lu xiimaane nag la indaale nag ci feeñu jamonoom am manto nag la indaale woon nag ak yére moo tax itam nag guddul aw fan mi ngi ci dëkk boobu nag daaru pakacaar nag ñu denc booba itam nag soxna Mariama Lo mi yeeg Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke nag ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar ak doomam jii nag di soxna Daba mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii ñeenti bant nag la soxna Mariama Lo am ak Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ngir xamale leen nag doomu nday soxna Daba Mbàkke yooyu nag ñoom ñooy ñan soxna Mbàkke xari moom soxna xari Lo bi mu matee dem kër sëriñ Mataar Seyloo nag lañ ko joxoon am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee soxna Maam Faati Lo soxna Nday Lo Lo ginnaaw bu mu jógee Omar Saylo moom soxna Mbàkke xari lañ ko jox nag sëriñ Moodu Saynabu Sill mook sëriñ Moodu Saynabu Sill nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Assu Sill doomu ndeyam ji nag di soxna Mariyamu Lo bi mu matee dem kër nag sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Njóoba Mbàkke soxna Ami Mbàkke soxna Njóoba nag lañ jébbaloon sëriñ Abdul Wudoot Mbàkke soxna Ami nag lañ jébbaloon sëriñ Moodu Mustafa Mbàkke Falilu mu am ci sëriñ Basiiru Mbàkke ginnaaw bu mu jógee ci loxo loxoy sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou lañ ko jox nag sëriñ maam Thierno Mbacke bu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ginnaaw bu soxna Mariamu Mbacke nag jógee ci loxoy sëriñ Modou Awa Balla Mbacke lañ ko jébbal nag sëriñ Mbay Fallou Ndiaye moom ci nag ku ñuy wax sëriñ Mbacke Mariamu Ndiaye ginnaaw bi nag lañ ko jébbalaat moom soxna Mariamu Mbacke sëriñ Mor Talla Fall bu Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina mu am fa nag ku ñuy wax soxna Daba Fall soxna Mariamu moomu bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Mor Talla Fall bu maam ko jox nag sëriñ Alioune moom sëriñ Malick Bassine Sy mook sëriñ Alioune Sy nag amuñu nag ak njaboota doomu ndeyam ji nag di soxna May Mbàkke Guube moom soxna Busaloo bi mu matee dem kër sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Amar Fall Mbàkke nag lañ ko jébbaloon ginnaaw bu soxna May Munatu Mbàkke Guube jógee nag ci loxoy sëriñ Omar Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Fàllu Mbàkke nag bu Mbàkke xewar doomu ndeyam bii ñuy wax soxna Mbeen Mbàkke Falilu moom soxna Assuloo bi mu matee dem kër nag lañ ko jébbal sëriñ Buso Buso moom sëriñ Seexu Buso moo am fokk ñuy wax soxna Faati Buso soxna Xadi Buso ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Buso Bousso Bousso moom sëriñ Seexu Bousso moom soxna Mbeen Faliilu lañ ko jébbal nag sëriñ Mortaala Faal mu am ci nag ku ñuy wax Baay Ndaam Faal mi mu faye nag sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo doomu ndeyam bii ñuy wax soxna Ami Faal Mbàkke Xari moom soxna Xari Lo bi matee dem kër nag lañ ko jébbal sëriñ Abdu Ummi Mbàkke mu am fa ku ñuy wax soxna Ñanga Mbàkke soxna May Munatu Mbàkke soxna Faati Mbàkke ak sëriñ Mustapha Mbàkke doomu ndeyam bii ñuy wax soxna Sooda Mbàkke Faliilu moom soxna Asuloo bi mu matee dem kër nag lañ ko jébbaloon sëriñ benn bant nag lañ am nag muy soxna Muuminatu Mbàkke ginnaaw bu soxna Sooda Mbàkke Fàlilu nag jógee nag ci loxoy sëriñ Moodu May Mbàkke lañ ko jox nag sëriñ Ousmane Bousso mook sëriñ Ousmane Bousso nag amuñu itim nag ak njaboot doomu ndeyam bii ñuy wax nag soxna Faati Gay moom soxna Roqaya Lo bi mu matee dem kër nag lañ ko jox sëriñ Abdou Xari Mbàkke mook sëriñ Abdou Xari Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu man caa ràññe sëriñ Cheikh Ngaya Mbàkke sëriñ Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Ndaam Mbàkke ñuy wax soxna Ami Gay Ousmane Mbacke moom sëriñ Modou Jee Mbacke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ousmane Mbacke nag amuñu nag ak njaboot ñii nag ñooy lenn nag ci mbokki soxna Daba Mbacke ndax ñoom seeni waajur ak waajuru soxna Daba Mbacke ñoo bokk nag soxna Aminta Mbacke ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo soxna Daba Mbacke nag muy doomu soxna Mariama Lo ak Cheikh dul Bassir Mbacke am na nag ñum bokkal Cheikh dul Bassir Mbacke ak soxna Mariama Lo ñu man cee ràññee nag soxna Assu Mbacke bintu Cheikh Mamadou Bassir Mbacke bintu soxna Mariama Lo sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ibnu soxna Marema Lo soxna Daba Mbacke bintu soxna Marema Lo bintu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ak doomu soxna Marema Lo nag ak Cheikh Mamadou Bachir Mbacke mi nga xam ne nii nag bi mu feeñee jamono nag kiimaan nag la indaale am nag aw laataa muy am aw tur nag la wujji suñu boroom soxna Daba Mbacke nag ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñeent ñim bokkal waajur wu jigéen nag ak waajur wu góor nag ñoom ñooy ñan soxna Assu Mbacke bi mu matee dem kër ma mu Mamadou Bachir Mbacke doomam sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke nag la ko jébbaloon soxna Assu Mbàkke mook sëriñ Abdul Aziz Baara nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna Xadi Mbàkke sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara ñetti bant yii nag la soxna Assu Mbàkke am ak sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke nag mi bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen laataa muy samp kër nag la génn itam nag àdduna baneen doomu soxna Mariama Lo bu góor boobu nag góor ak waajur wu jigéen jutta am aw tur laataa muy am aw la wujji nag waajuram soxna Mariama Lo ak Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ñu ngi nag ci suuf si nag di Saalum ci dëkk bii nag di Daaru Pakacaar ci Daaru Pakacaar googu itam nag lañ denc nag doomu Cheikh Mamadou Bachir bii moom soxna Daba Mbacke nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag moo ko dalal alxuraanul karima ginnaaw bi nag lu ko jébbal waajuram soxna Mariama Lo soxna Mariama Lo nag moo jàngal doomam ji nag di soxna Daba Mbacke ci dëkk bii nag di Kaolack bi Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag sañcee Kaolack soxna Mariama Lo nag la fa yóbbu woon nag comme soxna soxna Mariama Lo itam na fa ak doomam ji nag di soxna Daba Mbàkke soxna Mariama Lo itam nag nekkoon na itam nag kuy jàngale alxuraanul karim ci suuf soosu nag di Saalum ci dëkk boobu itam nag di Kaolack bari na itam nag ci gone yoo xam ne nii ci ron soxna Mariama Lo ak soxna Daba Mbàkke nag lañ nekkoon wax nañ ne itam na soxna Daba Mbàkke itam nag daana leen jàngal alxuraanul karim daara jooju nag waajuróom yoroon nag di soxna Mariama Lo ginnaaw ba mu jàngee alxuraanul karim ci ron waajuróom nag soxna Mariama Lo waajuróom nag Cheikh Mamadul Basir Mbàkke soxna Muslimatu Mbàkke nag bintu Sëriñ Tubaa Seexul Xadim nag la ko jébbaloon ngir mu yar nag doomam jooju nag di soxna daba mbàkke def na itam nag ab diir nag ci loxoy soxna muslimatu mbàkke ginnaaw bi nag la delsiwaat nag ci loxoy waajuróom soxna mareema loo ba nim matee dem kër waajuróom cheikh mamadul bachir mbàkke jébbal ko nag sëriñ moodu isaloo ci dëkk bii nag di taw fee xayga taw fee xayga nag soriwul nag dëkk bii nag di tiipa mook sëriñ moodu isaloo nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ñuy wax soxna moomi loo soxna moomi loo mii nag bi matee dem kër sëriñ mammoor mbàkke masàmba nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ mammoor mbàkke mbàkke masàmba itam nag am nañu ak njaboota ñu mënoon cee ràññee nag ku ñuy wax soxna ayda mbàkke soxna daba mbàkke nag bi mu jógee ci loxoy sëriñ moodu isaloo la ko waajuram cheikh mamadul basir mbàkke nag jébbal ku ko cheikh mamadul moustapha mbàkke boolee loon nag ci bi muy dem saalum di sëriñ moor mbàkke bil la cheikh mamadul basir mbàkke nag jébbalaat nag soxna daba mbàkke mii mook soxna daba mbàkke itam nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna muslimatu mbàkke bintu soxna daba mbàkke bintu sëriñ moor mbàkke bil sëriñ moustapha mbàkke ibnu soxna daba mbàkke ibnu sëriñ moor mbàkke bil soxna nday mareem mbàkke bintu soxna daba mbàkke bintu sëriñ moor mbàkke bil ñetti bant yi nag la sëriñ moor mbàkke bil am ci soxna daba mbàkke ci dëkk bii di kaolack nag la soxna daba mbàkke nekkoon ak sëriñ moor mbàkke bil ci quartier bi itam nag di tuubaa ndoorang ci biir kër sëriñ moor mbàkke bil bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ moor mbàkke bil jébbalaatoon nañ ko nag sëriñ cheikh turé nag bu ngin gi néew mook sëriñ cheikh turé nag bu ngin gi néew itam nag amuñu itam nag ak njaboota ginnaaw bu mu bintu Cheikh dul Bachir Mbacke lañ ko jébbalaatoon nag doomu ndayam di ñuy wax nag sëriñ Modou xari Mbacke waaye mook sëriñ Modou Khary Mbacke ba tey itam nag amuñu itim nag ak njaboota ci jëmm yii nag la soxna Daba Mbacke jaar laataa ñuy xuus sax ci njaboot gi sëriñ moor Mbacke Bil am ak soxna Daba Mbacke ñu wax leen sëriñ moor Mbacke Bil sax moom mooy kan doomu sëriñ Ibra sa Mbacke la sëriñ Ibra sa Mbacke doomu sëriñ Ahmadou Jee Mbacke la sëriñ Ahmadou Jee Mbacke doomu sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbacke la sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbacke doomu maam Maaram Mbacke la njaboot gi mu séq ak soxna daba mbàkke mooy soxna muslimatu mbàkke guddul nag aw fan sëriñ mustapha mbàkke itam nag guddul itam aw fan soxna nday mareem mbàkke moo toog itam nag ab toogaayam bi mu matee dem kër sëriñ ndaam faal nag liñ ko jébbaloon moom sëriñ mortaala faal soxna nday mareem mbàkke moo sëriñ ndaam faal itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna nday mbenn faal soxna maam bu sa faal la ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ ndaam faal lañ ko jébbal nag taalibeb cheikh mamadul bachir buñ doon wax nag sëriñ jiili jëng mook sëriñ jiili jëng nag amuñu nag Mbacke ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Jili Jeng lañ ko jox nag sëtub Cheikh Mamadul Basir Mbacke bii muy sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke imam mook sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke imam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Xujja Mbacke ñu gën koo xam nag ci soxna Naar Mbacke ak ku ñuy wax nag soxna Xadijatu Mbacke ñaari bant yi nag la soxna Ndey Mareem Mbacke am ak sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke njaboot gi itam nag ñoom ñooy lenn tim nag ci sëti soxna si mu wii nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Kaolack ci loxoy nag ki ko waayuram boole loon nag di sëriñ Mor Mbacke Bil di yar di jàng ak di jàngale bari na itam nag gone yum yar wax nañ ne soxna daba mbàkke nag moo leen jàngal alxuraanul karim wala itam nag daana leen jàngal alxuraanul karim soxna daba mbàkke waajuróomu jigéen nag di soxna mariama loo moom sëriñ daam abdourahman loo ku daa jàngale alxuraan la nag soxna mariama loo cheikh mamadul bachir mbàkke nag moo ko yóbbu woon kaolack ci bi mu sancee nag kaolack soxna mariama loo moom nag yoroon na daare alxuraan itim nag ci kaolack te itim nag moo yar doomam ji wala bokk na itim nag ci ñi yar doomam ji soxna daba mbàkke nag cheikh mamadul bachir itim nag jébbaloon na ko bàjjanam soxna muslimatu mbàkke Mbàkke bi mu jógee nag ci loxoy bàjjanam soxna muslimatu Mbàkke la ko waajuróom nag soxna Mareema Lo nag yar mu nekk itam nag ci dëkk boobu nga xam ne nii kat fa la waajuróom wu jigéen nekkoon nag di Kaolack ba tax na itam nag lu bare bare bari nag ci dëkk boobu di Kaolack itam nag def na ko fa soxna Daba itam nag nekkoon na itam nag ku yéeme nit itam nag daana am ay jafe-jafe moo xam jafe-jafe wér-gu-yaram moo xam jafe-jafe kër moo xam jafe-jafe am doom moo xam jafe-jafe nag bëgg dara itam nag mu faju yitte yii yépp nag ak yeneen yitte ngir jëmmi maamam nag cheikhul xadim bari na itam nag ci saalum saalum yi yoo xam ne ni itam nag soxna daba itam nag jaar naak ñoom foo xam ne ni itam nag duñ ko fàtte tax na turandoo yu bare bare bare bare bare am na ko itam nag ci dëkk boobu a foofu nag ci saalum ñaare nag roqi moo fa gis wala yata moo fa gis wala soxna moo fa gis buñ ko tuddewul soxna daba moom cheikh mamadul basir mbàkke kañ ko tudde nag soxna daba itam nag lañ ko tuddee soxna daba itam kóllëre googu mu amoon nag saalum saalum yi saalum saalum yi itam nag sàmm nañ ko ci diirum nag li fi soxna daba mbàkke nekk ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam nag doom ji mu fi bàyyi nag di soxna nday mariam mbàkke saalum saalum yi itam nag ñu koy wéyal nag ci njaboot googu ci biir kër soxna daba gi mu amoon ci Touba tabaxoon na fa bâtiment boo xam ne ni itam la ginnaaw bu mu fi bàyyi ko ma nga fa des itam nag ci loxoy saalum saalum yi ndax kóllëre goo xam ne nii nag saalum saalum yi am nañ kook soxna daba fu ñu riire moo xam ci Kaolack wala fu ñu riire nag ñëw nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba këram itam moom soxna daba Mbàkke nag yar na mbooloo mu takku nag ci jigéen nag ci biir këram ci biir mbooloo mu takku moomu nag mu yar nag ci biir këram ñu man cee ràññee soxna bintu bàcc soxna maam faati Mbàkke moor soxna daba Mbàkke moor soxna nday Mbàkke alaaji moodu faati Njaay soxna faati ndonga caam soxna assu mbeen sow soxna assu seen soxna daba jeng soxna daba Diop Khayra soxna Sukkay Mbacke moom sëriñ Basiiru Mbacke Xuja Jeng soxna Daba Mbacke Cheikh Assou soxna Nene Daraame soxna Daba Seck El Hadji Ñang soxna Daba Seck El Hadji Ñang Seck soxna Soda Mbacke Moor soxna Maam Jaara Mbacke moom sëriñ Abdul Akim Mbacke soxna Kinne Mbacke Guube soxna Joor Géey soxna Titi Géey soxna Daba Loo soxna Xuja Njaay soxna Daba Seen soxna Daba Diop Kaolack soxna Daba Mbay soxna Daba Njaay soxna Daba Fàllu Mbacke soxna Aminta Gay Roqaya soxna Aminta Gay Rakkam soxna daba mbàkke soxna nday assu mbàkke ak ñeneen ak ñeneen nag nag yu mu yaroon nag ci biir këram noonu mu yaree nag mbooloo mu takku nag mu jigéen nag ci biir këram noonu itam la yare mbooloo mu takku nag mu góor itam nag ci biir këram ci biir mbooloo mu takku mu góor moomu itam nag mu yar ci biir këram ñu mën cee ràññee sëriñ mbàkke abdourahman di conférencier sëriñ moor diop sëriñ moodu diop sëriñ moustapha lo sëriñ abdou aziz sëriñ moodu abdoulaye sëy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu takkoo takku nag ci ay góor itam yoo xam ne ni soxna daba mbàkke itam moo leen yaroon nag ci biir këram mu nekkin nag ku bëgg cheikh mamadul basir mbàkke ku doy loo itam nag njabootuk cheikh mamadul basir mbàkke ku amoon kóllëre nag ak mbooleem njabootuk sëriñ tubaa seexul xadim gi moo xam itam nag sëti seexul xadim yi ñu ci bare bare bari ci sëti seexul xadim yi cheikh mamadul basir mbàkke nag moo leen yaroon itam nag ci Kaolack te cheikh mamadul basir mu leen yaree mbàkke mii nag waajuram wu jigéen nag di moo fa nekkoon nag cheikh mamadul basir mbàkke cheikh mamadul basir mbàkke itam nag doon na xamal doomam soxna daba mbàkke njëlul sa doomi baay yii yow nag yaa ma ci doy na nga fexe itim nag ba sa waajur soxna Mariama Lo foofu sax nag bum la ko ci defal lépp loo xam ni daal moo aju itim nag ci seenug togg muy seenug lekk ak seenug naan yow mii nag laa ko sase nag nga yor ko mbooleem doomu baayam yi nga xam ne nii ñoo bokk sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim te Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke waajuram nag yaroon leen ci Kaolack ñoom ñépp itim nag soxna Daba Mbàkke nag moo yoroon itim nag seenug dund moom la ko waajuram Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke dénkoon tax na mbooleem doomu baayam yépp itim nag kóllëre ñi mu bokkal Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ñëpp itam nag joxoon nañ ko cër respecté nañ ko ñu takkoo takkoo takku nag ci njabootu Cheikh Mamadou ko doom ñu mën cee ràññee Serigne Moustapha Mbacke Bassirou nag di rakkam tudde na ko doom Serigne Moussa Mbacke moom Cheikh Mamadou Bassir na ko doom Serigne Cheikh Assou Fall Mbacke itam nag tudde na ko doom Serigne Fallou Mbacke moom Cheikh Mamadou Bassir Mbacke tudde na ko doom Serigne Abdoul Khoudous Mbacke moom Serigne Amar Fall Mbacke itam nag tudde na ko doom Serigne Bassirou Mbacke Khoudia itam nag tudde na ko doom Serigne Omar Mbacke Bass itam tudde na ko doom Serigne Omar Moor Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Basiiru Mbàkke Moor Dojitim tudde na ko doom sëriñ Moor Mbàkke Bilitim tudde na ko doom sëriñ Basiiru Géey Warkuuñitim tudde na ko doom sëriñ Suley Géey itim tudde na ko doom sëriñ Cheikh Aada Géey itim tudde na ko doom sëriñ Mamoor Mbàkke moom Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasul tudde na ko doom sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke imam ci Tuubaa Daaru Minam itim tudde na ko doom sëriñ Abdu Sekk itim tudde na ko doom sëriñ Moustapha Jeng itim tudde na ko doom sëriñ Cheikh Fall Géey itim tudde na ko doom sëriñ Moustapha Géey Faati Njaay itim tudde na ko doom sëriñ Siidi Ñaan itim tudde na ko doom Baay daaray àll kay tim tudde na ko doom Baye Guèye bu daaray kaamil tim tudde na ko doom sëriñ Thierno Ahmadou na ko doom sëriñ El Hadji Mor Mbeng itim tudde na ko doom ca Saalum tudde na ko doom sëriñ Jibi Taal ca Gosaas tudde na ko doom El Hadji Mbay ci Njaareem tudde na ko doom sëriñ Tamsir Taal ca Poroxaan tudde na ko doom ku ñuy wax Jóob Alkaati itim ca Kaolack tudde na ko doom Baye Mor Seck ci Touba Daaru Minam tudde na ko doom sëriñ Birahim Jóob itim tudde na ko doom El Hadji Ibra Badiane tudde na ko doom Baye ko ko muy soxna Daba Diagne sëriñ Modou Diagne itam tudde na ko doom sëriñ moor Diop tudde na ko doom sëriñ Abdou Jamil Lo tudde na ko doom sëriñ Lo Kànni itam tudde na ko doom sëriñ Basiiru Mbàkke Xujja itam tudde na ko doom mu génn àdduna mu fab doomam soxna Sukkay Mbàkke itam nag jox ko sëriñ Abdul Akim Mbàkke moom mu dul Basiir Mbàkke tuddewu ko doom waaye faboon na doom ju ñuy wax nag soxna Maam Jaara Mbàkke itam nag jébbal ko soxna si nag ngir mu yar ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu ko tudde doom ndax jikkoom ak melokaanam nag ci ron Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke soxna Daba Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag ci Touba Daarul Minnam ci bisub alxemis ñeenti fan nag ci weeru tamxarit ci atum 1417 nag ci gàddaay gi alxemis ñeenti fan nag ci weeru tamxarit ci atum 1417 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy jeudi 23 ci atum 1996 jeudi rakkam sëriñ Abdul Hakim Mbacke nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ca wetu waajuram wa nag soxna Mariama Lo bintu sëriñ Ndaam Abdourahman maire yu mag yi soo delloo nag ci way yi nga xam ne nii doomam nag di ki mu yar di sëriñ mbàkke abdourahmaan nag defal na ko ko mi ngi tudde nag xasida gi tey rii nag fil jinaan fukki woy ak juróom-ñetti tim nag la tënki xasida gi mu ngi tekki nag ci wolof naawal nag tàbbi itim nag ci àjjana ya soo delloo nag ci biir way yi sëriñ mbàkke abdourahmaan nag mi ngi ciy misaal adduna nag ni ma ne wor nag doomu aadama yi muy wax ne nag léeg nga gis nag kër gu naata naata naat léeg-léeg nag ka ko doon naatal nag dem léeg-léeg nga gis itim nag kër goo xam ne nii xumbute gu yaatoo yaatu nag moo fay nekk doon xumbal itam nag dem léeg-léeg nga gis itam nag kër goo xam ne nii lépp lu fa waaye soxla itam nag boo masaa dem fekk ko fa waaye ka ko daa joxe itam nag day dem jikko yooyu yëpp itam nag mu koy misaal nag ci soxna Daba Mbàkke nag bintu nag Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke muy wax na itam nag ak tab la woon mi ngi xamal doomu aadama itam nag adduna itam nag këru waraakoon la jikko yi yëpp mu limitim léeg-léeg nga gis nag ku ko melawoo adduna nag day xëy xëy rek far kooka noonu itam nag ni la ko defee itam nag ci soxna Daba Mbàkke mi jooyu xol daal la am doon ko yëkkati nag jagleel ko nag ki ko yar Daba Mbàkke nag bintu Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ci gëj gis goo xam ne nii itam nag gëj na ko koo gis te itam nag ni la koy noppee gis itam nag ci kaw àdduna ba tax na daal mu def ko ay jooyu xol lu yaatoo yaatoo yaatu daal ci ay jikko ak itam daal ni àdduna itam nag di wore doomu aadama yi ci jant nag wala ab taal nag bu suñ boroom nag daa taal nag def ci nag ay xéewal ci kàllaamay araab itam nag la ko sëriñ Mbàkke Abdourahmane def ci fukki waaye juróom-ñett nag la ko tënk jagleel ko nag soxna Daba Mbàkke nag ñu teewlu ko ya dunya tufaaji'u bi shuruuri wala tadacu alxayaata ala sururi tudakiruna xawaadifuha bi anna ala tuuli aliqaamati lilqubuuri xawaadifu طالما مر ببيت فأروت أهله كأس الصبور فكم راعت قلوبا في قضاء وأهرقت الدموع على الصدور وكم أخلت ديارا من نفوس عرفناها مصانع للخيور وكم سلبت بنيها نعمة في قريب أو صديق أو عشير كما فعلت بنا يوما به قد أصابتنا بخالتنا الصبور رقية شيخة عرفت بدين وإخلاص وطهر ذات خير رقية خير man rabbat wa aawat banaatin littaaddubi fi duyuri ruqayatu bintu bahri alilmi waljuudi walirfaani muhammadin albashiri an iddunya raxalti li daari xaqin li mithliki hiya nicamun fi sururi fatiiri fi jinaani alxuldi wawi li arshi illahi farxa mithla xuuri wa ciishi bayna jiiraanin kiraamin min alajdaadi fi daari alxubuuri walaa yaku fi alahaali bacdu illa sabuurun yartadi xukma alqadiri wa illa man yuwaasilu sacya xayrin tucawida min النعمة لله البصير ويدعو الله مطلع كل شمس ومغربها لروحك فيض نوري عليك سحائب الغفران تترى برضوان من الرب الغفور وصلى الله ما طلع الذكاء على الهادي مع الأهل البدور ay xalifaam nag nii la tëddee soxna maam Mariam Mbacke bintu soxna Daba Mbacke moo nekk nag ab xalifaam nag ci atum 1996 nag ba nëga ni ñu koy ñaanal nag suñ boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram ak mbooleem nag ñu mu séqal soxna Daba Mbacke bintu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke soxna Daba Mbacke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci luñ tuddee ak màggal bisub juróomi fan nag ci weeru tamxarit di bis bi mu génnee àdduna nag ba ca suba ga bis boobu itam nag la ak njabootam jàpp di ci fàttaliku nag seen waajur wi muy juróomi fan nag ci weeru tamxarit li ko dale nag ci atum 1997 nag ba nëga ni ñu ngi fàttaliku nag doomu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke boobu di soxna Daba Mbacke bis bi nag ñi nga xam ne nii nag soxna Daba Mbacke nag moo leen yaroon nag ci këram muy saa bàjjen yu góor yi ak saa bàjjen yu jigéen yi mbàkke yépp ak turandooy soxna assu mbàkke yi ak njabootuk soxna daba mbàkke gi di fàttaliku nag seen turandoo weeg seen waajur weeg ki leen yar ci bisub nag juróomi fan nag ci weeru tam xarit màggal gi itam nag màggalug bëccëg la ci biir màggal gi nag njabootuk soxna daba mbàkke ak turandooy soxna daba mbàkke yi ak turandooy soxna assu mbàkke yi ak ñi nga xam ne nii nag soxna daba mbàkke moo leen yar ñoom itam nag ñu ngi ciy fàttaliku waale mbooleem njabootuk soxna mariama loogi soxna assu mbàkke bintu cheikh mamadul basir mbàkke sëriñ moodu abdoulaye mbàkke ibnu cheikh mamadul basir mbàkke Mbàkke ba ci soxna daba mii jabootuk soxna Mareema loogi ñoom turandooy soxna daba Mbàkke yi ak turandooy soxna assu Mbàkke yi ñoom ñoo leen war a fàttaliku waale ci ñu tudde ak màggal ñuy ñaan ca doomu cheikh mamadul basir ba ka cheikh mamadul basir Mbàkke féetale woon saalum di soxna daba Mbàkke bintu cheikh mamadul basir Mbàkke yàlla nañu ko suñ boroom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem